yn i o n b o g i dañuy souhaiter kon un très heureux ménage à l'artiste sénégalais le chef euh, d'orchestre de 5 étoiles Sidy Diop nak Diop nag yaakaar naa eh, artiste bo xamanteni dañ koy présenter ci réew bi à travers rek euh, son yu am solo wala sax carrière bu am solo bi nga xamanteni kon mi ngi koy amal bokk rek ci xalé yi nga xamanteni musique sénégalaise dafa am ci ñom yaakaar bu baax a baax a baax rek eh, bi ko gisee kon muy euh, prouver ba daal rek tollu fi mu toll moom Sidy ñu bari rek don ko togn sax saa su nekk nan ko ak ah, mariage à le mariage kon euh, ginnaaw loolu niki démb lañ gis mu dugal ci statem photo kon bu mu àndeeg benn soxna su jigéen daal ci bind rek welcome madame job ci loolu itam ñu gis rek même photo boobu ñenn ci ay naataangoom yu bëri bëri daal di koy riposte rek di ko souhaiter un très heureux ménage euh, kon mu nekk xibaar boo xamante ne niki démb kon lañ ko am moom Sidi Diop su ko defee kon senegal wërngal këpp itam dal di koy ñaanal bu baax baax sëy bu tam la ko di defee rek ak équipe souhaité ko bu baax kër ñaanal ko itam lépp loo xamante ne dogu ci wut ci njaboot rek moo baax kër te itam yàlla sàmm diggante bi bu baax a baax